amateur yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di ah, euh, boo xam ne bii question pertinente la boo xam ne dama bëgg yéen ñëw ngeen jël. moom lañu moom lañu wax gën a jekk yaa moom làmb ñaata combat nga def ñaata victoire nga mbokk yi suivre Lutte TV point com ñu ngi leen bu baax a baax di leen ziare ki ñu jàkkaar lool xam ngeen ko muy njëmmal. njëmbaan 2 mu bëre keroog digganteem ak Albouri combat bi nga xamante ne tey amateur yu bëri doon nañ ko xaar donte doon nañ xaar alaaj Mbay ak ak ak Boucher waaye seen combat tamit gars doon nañ ko xaar nga bëre ko Albouri daan la waaw borom maam xaw ma lan nu koy waxee noonu rek <laughs> mu walla boppam ñu ñëw fas yéene ak yow ci loolu rek nuyu la bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp su ko jëfee ñu waxtaanee ko nga wax ñu lan nga def ba ñàkk combat bi maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw Lamine maa ngi lay siyaar wér maa ngi lay bëggee di bëggee waa àdduna di bëggee ñëpp ah di bëggee waa géej waa gi ñëpp cat ba cat sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp di gërëm sama gaay ma fekk ñoom Youssou ah ñoom Aali Mbër di sant ñëpp sant àdduna monde entier ñi ma doon ñaanal ah di sant ñëpp ñëpp ak képp ku mu doon supporter Ndiamane maa ngi lay sant baax a baax baax baax a baax di la gërëm waaw. Ndiamane mi nga doon bëre astafurlah Alboury mi nga doon xam nga ko mi nga doon bëre ak rek. Alboury xam naa ko xamul laamu nii rek mais keroog moom la yàlla àndal. lan moo la dugaloon ci moom xaalis wala nga ko jëloon pour daan ko. non làmb moom maanaam fii ñu tol nii moom xaalis mënoo ci am xaalis da ngay bëre ba pare kay day am ay bor da ngay bëre ba pare kay day am ay bor moom mais làmb moom du question xaalis fu mu nekk nii moom waaw. moo ñu boole woon waaw. moo leen boole woon. Ah, ñu boole woon ku ne da am loo yóbbu sa rek. Lamine combat bi ñu da ay coono yu méttee méttee méttee méttee nag da lu nekk nag pour amoon ndama ah. mais kenn xañuñu ko dul sunu borom. waaw combat bi nag dama ci jànkonteel yu méttee méttee méttee métti Lamine. waaw dafa dama ci jànkonteel yoo xamante ni maanaam mënu ma toog sax di ko wax. waaw dama ci jànkonteel xam naa ne noonu la mënoon demee quoi. non jafe-jafe yi nga xamante ne moom nga jànkonteel ci combat laa bëgg nga leeral ko parce que tamit mooy tëb tëb rek ni dama combat bi dama ciy jëf dama cee dund lu metti ay jànkonte patati patata loolu foog nga leeral ko parce que tamit gars yi nee nañ mbir bu daanu ut lay. non man moom wax dëgg fa yàlla man du ma ut lay quoi mais lamb yi daa lu ma ci préparé daa am lu ma ci préparé Lamine ma dem ba ci biir ay war am ci ay war am ci lamb ji ñi may yaakaaroon ñu may ñaanal ndekete ñoom ci beneen camp bi lañ nekkoon. waaw ki may waxal xam na bopp bu baax a baax a baax a baax. a baax war ci combat bi waaw dañ bi. sëriñ la wala courtier. sëriñ la du benn jàmbaar andi pour mënoon ñaanal sama benn waay moo ko andi pour mënoon ñaanal ki may wax ni moom xam na bu baax ki may li may wax. yoof gii dëkk. Hmm. waaw yoof bii la dëkk. ko benn mbër mu siiw waaw. yoof fa nekk moo fa siiw. du foofu côté boobu sax ko ñoom dumb la dëkk. Ah, ko ñoom dumb la xam na bu baax. moom xam na man xam naa. waaw sëriñ daal moo la trahir. sama sëriñ moo ma trahir ndekete moom beneen camp bi la doon ñaanal ñëw fii gaan Lamine lu ne mu suul ko fi. lu ne mu suul ko fi lu ne lu lu ne mu def ko fi. ñëw fii ndekete mi ci beneen camp bi la nekk gaan ñëw di ma sang may nakam rek Lamine gaan mm. barki sëriñ Touba wax ni li ma lay wax ni ba amul yàlla bu ma fanaan guddi tey. waaw billaay taalaay yëpp mu jël ko fi suul ko fi yëpp. yëpp yëpp yii ko mënoon li ñu ko suliloo ñun xamuñu ko de barki sëñ Bamba sunu benn waay lañ ko envoyé teeru mu ne lii ku ko def dafa rey mbër mi leneen ak leneen ak yeneen ñu envoyé ko ñëpp ñu dara mënul tax ñuy nekk fii di saltel ay victoire ak ay barki sëriñ ko ma ko ko war na sëriñ Tuubaa yii la suul fii ak yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen sama benn gaan moo ko sulli jour lamb ji la ñëw fii kon yow lamb ji gàllañ nga wote entraînement yu méttee métti métti métti métti laa ci daj perte quinze kilos entraînement yu méttee métti laa ci daj dini teewaan pëli entraînement liggéey lu métti andi andi état contact yëkkatuma wi yëkkatuma dara entraînement yu méttee métti laa daj billaay walaay ànd ak sama benn sama boy zori ñoom lulu ñoom taam kereka ñu téema dindi sama graisse bépp bépp ma daj ci ay coono ah. mais tamit sunu borom moo ma xañ ma koy sant yàlla baax a baax. dama bëgg nga ñëwoon ma ci combat bi nan nga bëree ba daanu. combat bi daal Lamine li ma la wax nii daal maanaam daal xam naa ne moom a daal. arbitre soufflé na. arbitre soufflé na njamaan nañu léwatoo njamaan bëgg naa dóor mënul dóor njamaan bëgg naa jàpp mënul jàpp njamaan nax nañ ko plaqué mu daanu. Hmm. waaw loolu la am ca làmb ji man ba ma jógee sax maanaam man comprendre ma quoi. mais bi ngeen jàppante ci sant ni moo la ëpp doole moo a ëpp doole. Alboury maa ko ëpp ay mbaytin ay fils de Balla. ñoo ñoo mën Alboury mille fois di contact ay buus ak weeru koor gi lépp dañ kaa contact lépp. fekk nga fa ñuy contact ak ay champion yu mag yow ah mais nag noonu la mënoon demee bu ñii di gas ñii di ñuy suul waaw. lamb ji man sentir moom man maa ñëw sax. est-ce que jàppee woo jàppee woo woon Alboury Comédie parce que même ci signataire yi doon nga ko doon wax. Alboury nan laa koy jàppee. comédien comédien. Alboury nan laa koy jàppee comédien man mi nga xamante ne Lamine combat bi maanaam aw ma ci benn soutien man maa jaay samay xar yi ma waroon def opération tabaski jël samay set xar jaay lépp xëpp ci làmb ji jël samay ginaar jaay lépp lépp lépp parce que combat bi maanaam dama ci wéet kenn jàppale wu ma ci lépp lépp lépp maanaam man maa ko defal sama bopp. lépp maa jël samay sat xar yi ma doon def opération opération deux cent mille deux cent mille jaay lépp loolu ñaar la. sept xar deux cent mille deux cent mille ñaar. un million quatre cent. million quatre cent lépp ay ginaar rek lépp nga jël ko xëpp ko ci. ñaata la fayal. waaw liñ ma fay man liñ la fay loolu. matoon na un ma fay daa xaaj bay mat un million. li ma fay matu xaaj matu sax un million. Ah, liñ fi waxal moo nan day fay dix millions quinze millions. man na wax dëgg fa yàlla moom moo gën moom dama koy sant baax di ko gërëm waxaale wul ak man waxul man ci affaire de lamb. waaw mais jàppale ma ci ay billets joxuma dara nag. may na la xaalis. non mayuma xaalis. ñaata bolog la la may. non may nañ ma ay bologu billets jox na ma ay bolog bi jox na ma quatre bolog bi. loolu rek un million la ngir kay jàpp na ci. non waaw moo gën daal jàpp na ci loolu daal laa mën a wax jaar na ci loxo bosuñ jox ma ko. Alboury moom mbedd bu mu jaarate da nga ko teggi xanaa. non bu mu jaarate dinaa feeñu fa Lamine. parce que keroog nee na bu ñu taxawal fii mu daan. waaw ku daan yaa ku moom ku daan moom la neexee da ngay wax lu la neex daan moo demee noonu boo daanoo maanaam lu na ngay dégg mm. mais boo daanee lu la neex wax. daan nag moo demee noonu. mais Alboury moom xam na man xam naa ñi mu yabaloon ñëpp pour ñu ñëw sama kër ak lépp xam naa mais du ma saltel victoire du mhm. keroog sunu borom moom la may keroog lu ma mën a def la damay daanu lu ma mën a def ci àdduna damay daanu du sama du njàmbaaram moo tax mu daan ma du dara yàlla moo ànd moom mhm. waaw mais Alboury maanaam lamb feeñu fa man ak moom. Alboury daal yaa ko mën. non du ma ne maa ko man ma. non du ma ne maa ko ndax keroog man la daan. kon du ma nangu ni moo Alboury bu ma jàppoon duma ma daan ma Lamine laay nangu ne moo ma mën mais Alboury lamb ji yow mi noonu rapport sax xam nga ne lépp lamb ji mi noonu rapport sa xam nga ne loolu maanaam lambu feeñu ko non bëre amul amul dara amul da ngay yow boo xamee mbër sax da ngay xam ne mbër mi tey dafa ñëw pour gëlëm man ñaata combat laa ma ñëw demeewul noonu mais keroog moom la yàlla àndal koy sant yàlla man mayuma sama bopp sunu borom moo may may moo may xañ da di loolu lu gën ci man la léegi fan nga jëm. non fu ma jëm ci kaw gars rek laa jëm parce que fu mu nekk nii maanaam làmb du kenn ne kenn ci de def naa lu ma ci war a def lépp lépp lépp. waaw fi ma jógee mais kiiw suñu borom la rek Lamine <laughs> affaire moom xoolal Lamine waaw may sunu borom luy jeex la rek fii moom njëkkee wu ko fi te du ko fi mujjee ñëppay daanu am na mbëri fi tegale woon set defet am na mbëri fi tegale woon dix défaites ñëwaat. mbiru sunu borom rek dama koy sant yàlla man moom jàmb xeebu laa di ñaan rek xam nga la moom war entraîné waat defaruwaat demaat ñëwaat ci làmb ji waaw. boo xam ne bii question pertinente la boo xam ne dama ci bëgg ngeen jël. moom lañu moom lañu yaa gën a jekk yaa moom làmb. ñaata combat nga def ñaata victoire nga am ak ñaata benn nga am béykat yi. am na quinze combats seize combats deux défaites.